hello asalaamaaleykum dear english learners welcome back to Few Anglais bu gaaw ci olof fast english in wolof so today suñu lesson bés bi dañuy jël ñaari yoo xam ne dafa niroo lool ci wàllum firi waaye nag si wàllum sens xaw na wuute tuuti muy must ak should mu nekk ñaari baat yoo xam ne yu niroo la kon tey dinañ ko leeral si leçon bi su fekk yaa ngi soog a ñëw si chaîne bi su fekk yaa ngi soo gis ñu vidéo ñu ngi lay wax nga abonné ba si cloche notification bi su ko defee bépp leçon anglais bépp vidéo buñ dugal nga mën see teel a jot ndax seen bii dañ fiy jàngale anglais di ko jaarale ci làkkub olof. FEW Fast English in Wolof. alright fellas comme ni mu ko waxee tey suñu leçon bis bi dañuy jël must ak should mu nekk ñaari baat yoo xam ne yu niroo la lool waaye nag seen firi day xaw a wuute ndax must ak should li muy toll ci olof mooy war comme war a def dara for exemple nga xool you should learn your lesson you should learn your lesson da ngaa war a jàng say leçon ba tey tamit su ma waxee ne you must learn your lesson mooy da ngaa war a jàng say leçon kon yaa ngi gis kon foofu must ak should ñoo bokk firi waaye nag am na différence bu ndaw bu am ci biir must ak should kon ñu xool must kañ lañ koy jëfandikoo anglais nee na must is used for strong obligation or necessary for strong obligation or necessary maanaam strong obligation suñ ko waxee mooy maanaam loo xam ne da nga ko war a def force strong obligation obligation la boo xam ne yow da nga ko war a def loo xam ne wareef la amul neexal da ko war a def amul layam layam li ok strong obligation or necessity maanaam loo xam ne mënta ñàkk exemple nga ne you must work hard if you want to succeed you must work hard if you want to succeed da nga war a liggéey bu baax su fekkee ne da nga bëgg tekki su fekkee da nga bëgg a tekki da nga war a liggéey bu baax you must work hard if you want to ok if you want to succeed kon foofu liggéey bu baax bi wareef la da ko war a def amul neexal obligation la it is a strong obligation da nga ko war a def ok su fekkee ne bëgg nga tekki of course beneen exemple you must wear helmet when riding a bike you must wear helmet when riding a bike da ngaa war sol casque su fekkee ne da ngay dawal moto sooy dawal moto da nga war a ok danga nga war a sol casque kon kon loolu maanaam it's a strong obligation necessary la maanaam mënta ñàkk force nga def ko soo ko deful di xam li nga xam ne moo la siy fekk ndax soo sol casque ngay dawal moto maa day taal ak nga xaw a def choc bu boobaa nag ah am na gaañu gaañu yoo xam ne mën na ñàkk su fekkoon ne ok su fekkoon ne sol nga casque nga xam ne moo si mujj. I must pray five times a day I must pray dama war a julli five times a day juróomi yoon si bés bi kon si bés bi dama see war a julli juróomi yoon kon loolu force dama ko war a def amul neexal amul layam-layam wareef la force la I must pray dama war a julli five times juróomi yoon a day ci bés bi kon noonu dañu utiliser li nga xam ne mooy must guys alright kon nañ xool should kan nañ koy jëfandikoo ok newoon naa la ba tey should ak must ñoo bokk firi mooy wareef waaye nag seen différence bi dinaa ko leeral tey jii nii su nekkee should anglais lu mu wax mu ne is for recommendation or advice it's for recommendation or advice maanaam recommandation la maanaam ma lay ma lay ma lay digal dara wala ma lay dénk dara wala advice ma lay lay biré dara daanaka ñoom ñaar ñoo yem sorewuñ recommendation and advice ok maanaam ma lay leeral dara noo malay lay ok malay lay xelal ma lay bire biré exemple pour mu gën a leer you should see a doctor if the pain persists you should see a doctor if the pain persists mu ne yow de danga war a gis ab docteur wala danga war a seeti ab docteur su fekkee ne métit bi mu ngi continuer ba tey su fekkee ne métit bi mu ngi continuer ah man daal li ma gis mooy ok nga dem xooli ab docteur kon foofu chute boobu ban sens la yore maanaam dama lay lay biire dama lay conseiller pour nga dem xooli ab docteur waxuma ne ne force dangaa war a dem ok mais dama lay lay biir rek right beneen exemple nga ne You should subscribe to Phil if you want to be fluent in English. You should subscribe. Ah, da nga war a abonné si Fast English in Wolof. If you want to be fluent in English su fekkee ne da nga bëgg ay ci anglais da nga bëgg ay ci anglais ah kon nag li ma lay xelal mooy nga abone ci chaîne bi Fast English in kon su fekkee abonné ko alright phrase bi pour yow la ok if you want to be fluent in English. so subscribe to feel alright fellas bi nga xam ne mooy si mujj gars yi si exemple yi nee na ko he should do exercise regularly if he wants to lose weight. He should do exercise regularly if he wants to lose weight. dafa war di def sport lu bari do exercise fii li muy mooy def sport lu bari if he wants to lose weight su fekkee ne bëgg naa perdre poids su fekkee ne bëgg naa perdre poids su fekkee ne bëgg naa wàññeeku ah, kon nag dafa war a def sport lu bari kon fii li jëfandikoo mooy should should lañ jëfandikoo ndaxte fii dañ dañ koy lay biir dañ koy recommander dañ koy advise su fekk ne dafa nekk strong obligation loo xam ne dañ la koy digga par la force wala dañ la koy leeral dañ la koy wax par la force bu boobaa must la ñuy jëfandikoo kon guys loolu moo nekk différence bi nga xam ne am na si should ak must kon xam nga should kañ lañ ko jëfandikoo xam nga mëst kañ lañ ko jëfandikoo kon loolu moo nekkoon suñu la bés bi kon dañ leen like di abonné di commenter see you soon on your favorite YouTube channel anglais bu gaaw ci olof goodbye FEW, Fast English in Wolof.